mbokki taalibe noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi nu dëgmal muy màggalug 2011 di leen ci ziyaara tey nu ñëw fas yéene indi tomb bu am solo ci waxi sëriñ Tuuba fas ko yéene jàngat ci ni nu ko sunu kàttan maye yu ñaan sunu borom mu defal nu ci ndimbal ak tawfiq tomb bi mooy sëriñ Tuuba dafa wax ni nasa ali wa laysa minni yanziu wa innani bihi himan wa mafzau mu ne suñ boroom dafa ma def ma doon kaaraange di ab làqutukaay loolu lenn ci bokki taalibe yi sàkku ci man ma gëstu nan la sëriñ Tuuba doone ab làqutukaay waaye ma mbir mu mën a doon mbir mu mën a doon ni ko sunu borom binde ni sunu borom binde jamonoom mooy lu mën a doon daf caa sàkk yaar sëriñ bi tuut nañu ci dégg ay kàddoom tuut nanu ci mën a leeral ay waxam waaye lu mu rekk lanu ci sun borom may ci ak dégg ba noppi it mu doon lu nit ñi mën a dégg loole daanañu ci jéem a leeral sun kem kàttan may wax ni doomu aadama sun borom dafa def ci tabia mu ci nature doomu aadama sun borom daf ci mooñaale bëgg lu baax ak bañ ab safaan li nuy faral di wax muy mucc ak xéewal ku jóg di yëngutu rekk benn ci ñaar yooyu moo la tax di yëngutu bëgg a mucc mbaa nga bëgg ak xéewal jëmm joo seen mu jóg di dox benn dafa jóg jëm ci xéewal gu muy séentu mbaa nga di ko seen muy daw ngir di moytu aw ay wu ragal loolu dafa mel ni suñu borom daf ko binde doomu aadama waaye sax mën naa ni mboolem luy dund rek suñu borom daf laa bindaale loolu ci li nu xam mu mel ni bi boobu la suñu borom jëfandikoo ci alquran ba tax doomu aadama bi ko sun borom di woo ci dayo bi tax mu bind ko daf koo jaare ci yëg-yëgu doomu aadama boobu mooy xemeem loo ko walla mu ragal loo ko moo tax doomu aadama jamono bu ne day nekk baynal xaw fi war rajaa diggante ragal yàlla ak yaakaar ko ni alquran waxe yarjuuna rahmatahu wa yaxaafuuna adaaba moo tax yonent yépp it seenu woote ci ñaar yooyu dañuy sukkandiku ci xeymem loo nit ñi ak ragal loo leen ma ni rabbaani yoone yépp it mbooleem ñi sunu borom tànnaat ginnaaw yonente yi ñu taxaw seen taxawaay it ci ñaari tomb yooyu rek la ñuy jaar ngir xëcc nit ñi jëme leen ci li tax sunu borom bind leen muy ragal loo leen ak xeymem loo leen mu mel ni kon baatub nasa ali bayit wi sëriñ bi wax ni nasa ali wa laysa minni yanziu wa ni bihi ximan wa mafsau génnul cadre boobu nga xam ni moom la sunu borom wootee ci alquran yonente yi woote ko woote bi yàlla ci seen biir boote waaye nuy laaj kon nan la nekkee làqatukaay nan la nekkee kaaraange ci doomu aadama yi ma ni loolu bu ñu ko bëggee xam wala bu ñu ci bëggee xam aslëf ci li doomu aadama mën a dégg dañuy jàngat situation yi réew mi daan dund jëkk sëriñ bi di feeñ sëriñ bi dafa feeñ ci jamono yu xat muy jamono bi ceddo yi di jeexal dajanteeg tubaab yi di dugg si ci réew mi mu feeñ ci jamono boo xam ni jamono ngëlëmte la ndax ceddo yee fi nekkoon ak kilifa yu daan woote taxawal diine ak sëriñ sëriñ suy taxawal diine tubaab yi ñëw fekk leen fi fekkoon nañ fi sax ay gag ak yàqu-yàqu ak i xëccoo ak i bañante ak i xeex waaye biñ ñëwee dañoo ñëw nag salfaañe lépp ba ceddooye gag dem taxaw nale sëriñ si amub gag-gag sëriñ bi ci biir lëndëm goog yi ak ngelamte loolu ci la feeñ mu mel ni moom la suñu boroom def muy li war a ñëw ngir wuññu sa njàqare nit ñi ak géndi leen ci seen ngelamte loolu ñu daan dund ndax suñu boroom bépp njàqare ba mu wàccee ci kaw suuf defal na ko ak wuññiku ma wax léegi ci ma wax léegi ci njëlbeen gi ni doomu aadama buy yëngatu bu ne rek ab yëngatoom génnul ci génnul ñaari cadre yi muy sàkku ak mucc walla wut aw yiw waaye lu ëpp ci nit ñi it walla boog sax suñu borom daf ko def muy tabian doomu ak mucc aku xéewal ñu ngi koy làmb ci nguur ak alal ñii ci nguur lañ koy wut ñii di ko wut ci alal te ku ci ne jàpp ni li ngay wut boo ko amee danga am ñaar yooyu muy ak mucc ak xéwal waaye mucc googu ak xéwal nit do jóg di ci yëngutu ñépp a ci yem ki suñu borom def mu gëm àdduna képp yam ci ak ki sunu borom baaxee ba mu gëm ëllëg ku ci ne mucc rekk ngay wut ak xéwal daal dina kii dafa gàttal mucc ak xéewal gi mu wut yamale ko ci àdduna kii di ab jullit yaatal ko bëgg na ko àdduna bëgg ko alaaxira waaye nguur akuk alal ak alal la nit ñi daan yëngutu di ci kër-këri di ko xëccoo ngir jàpp ne bu ñu ko amee mucc ak xéewal dana loolu ma waral xaccoo yi am ci diggante nit ak nit kii ci diine la ko gis ka ca des gis ko ci àdduna kese waaye mu mel ni situation yi xewoon ci senegaal njëkk sëriñ bi feeñ bu nu ko jàngatee mel na ni jàngat nanu situation yi xewoon ci àdduna bépp ndax nit ak nit dañoo niroo ni ndox ak ndox di niro senegaal dafa nekkoon ci kilifteefu Mali as Soudan al Gharbi lañ koy wooye waaye saa buñ ne nee as Soudan al Gharbi Soudan dañ ko daan xaaj ñetti xaaj def sudan bi féete penku as Soudan al Sharqi def Soudan bi nekk ci digg bi muy as Soudan al awsat defaat as Soudan al xarbi muy Soudan bi féete sow wallu sowu jant kon buñ ne Sénégal as Soudan al xarbi moo ko yëlifoon loolu li muy tekki mooy ginnaaw bu ñu jógee ci kilifteefu Gana ndax Gana moo yëlifoon ba ci géej gii nu toll géeju Atlantique gi ginnaaw bi bi Mali libéré ci ci gana état yi ñu taxawaloon muy état islamique ñoom itam ñoo yilif li tàmbalee foofu ba ci géej gi ma senegaal Sénégal mu rëccee ci kilifteefu Mali googu def benn fédération ci ron àtteb njaajaan njaay mi doonoon buuru Jolof ginnaaw bi buur bi ñu daan wax Mansa Souleymane faatoo ci 1360 Mansa Souleymane Mansa mooy buur ci làkku Mali làkku Mandinke ma ni ginnaaw bu buur boobu ñu daan wax Mansa Souleymane faatoo ci 1360 ñu nekkoon ci ay xëccoo ña ko war a donn nekk ci xëccoo ak xilaafa ci la njaajaan njaay mi nekkoon buuru jolof occasionné pour libérer Sénégal ma ne depuis ak tey réew mi ak ni sëriñ bi feeñe réew mi dañul ci ay xëccoo jógul ci ay xëccoo jógul ci ay guerre waaye xëccoo yépp ak guerre yépp it ñaari mbir rekk a ko waral muy sàkku ak nguur ak alal ak kilifteef ak alal mu doon coow lu daj kapp ci diggante ñetti kuréel yii fi nekk ñetti kuréel waaye kuréel bu ci ne it di xëccoowaat ci seen biir ndax ay caddoo fi nekkoon ak i sëriñi diine ginnaaw bi colonialiste yi ñëw tubaab yi ñëw fekk leen fi waaye xëccoo bi mu ngi amoon ci diggante caddo yi ci seen biir xëcco bi am ci diggante tubaab yi ci seen biir xëccoo bi am ci diggante kilifay yi yi ci seen biir waaye noonu la xëcco bi amee diggante caddo yi ak tubaab yi noon la xëcco bi amee diggante caddo yi ak sëriñi diine yi noonu la bi amee ci diggante sëriñi diine yi ak tubaab yi ba tey mu doon coow lu bari lu daj kapp ci réew mi ci fukkeelu siècle ak juróom benn muy daanaka ginnaaw bu Jolof taxawee ba def fédération bi diir bu gàtt rek ci la tasaat la ko tas la ko xaw a tas la ko jëkk a tas mooy benn pël bu ñu wax Kuli Tengla Kuli doomi baayam moo tuddoon Tàngila Tàngila moomu euh, moo jëkkoon a sos état état bi euh, jëkk a def ay rawalte waaye doom ji ñuy wax Kuli nag moo jóge ca Fuuta Jalo jaar Gambi euh, jaar Jolof ñëw dem ba Fuuta Tooro mu sos fa nguurug de ñànk de ñànke nguurug de ñànke googu bi ko kuli tàngi laa sosee foofu yi ba noppi nag sonal lool buuru jolof ci ay guerre loolu bokk na ci li gën tas fédération jolof noonu la guerre yi continuer ak xëccoo yi ci diggante ceddo yi waaye xeex ba ci gën a te ëpp ci solo mooy xeex bi nga xam ni Amari Ngoone Sobel moo ko xare woon ak buuru jolof ci mille cinq junni at ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent te ginnaaw bu guerre boobu jeexee ci la kajoor libre libéré waale bawal ak ab xaaj ci waalo ba jolof yilifatu leen gannaaw bi la région siin ak Saalum ñoom itam fàq daldi libar jamono boobu lañ def benn fédération ci diggante Bawol ak Kajoor ak Waalo bépp buur bu doon dameelu Kajoor yaay doon teeñu bawal doon barag Waalo jamono boobu Kuli Tangila di sos état de ñànke ci Fuuta Tooro moo tombe ak tubaab yi di xam Sénégal Sénégal ñi ngi ko découvrir ñoom booru 1364 ci cent quarante 1444 ci la portugais yi ñëwee sanc ca Arguin ilu Arguin hollandais yi ñoo topp ci portugais yi kon portugais yi ñooy tubaab yi jëkk wàcc si ci Sénégal wàcc ca Arguin ndax bu ñu ñëwee it tefes gi moo leen di gën a ñor ngir commerce mi leen taxoon a jóg sës ci tefes gi da leen di gën a arrangé ginnaaw bi Hollande yi ñëw sañc illu gore ci mille wala boog sancuñ ko waaye ñëw nañu occupé ko ci cent 1688 bañ demee ba 1621 ci lañ sañc gore ñoom Hollande yi sanc ko wóor nag ginnaaw bi anglais yi ñëw ci 1651 sanc ca tefasu Gambie ga ñoom itam jaxu Gambie ginnaaw bi la français yi doog a ñëw ci 1659 sanc Saint-Louis waaye nag ñeenti réew yooyu bi ñu ñëwee ba kenn ku ne sanc fenn ci tefes gi dañoo daal di tàmbali ñoom itam di dugg ci ay xëccoo ak i concurrence ngir ilu gore ndax dafa doon il bi nga xam ni moo ci ëppoon solo ci e, ku ko yëlef sam commerce fii gën a mën a jaar ngir jàll Hollande yi kon ñoo ko jëkk a sanc waaye ginnaaw bi portugais yi ñëw xëccoo ko ñoom ba nangu ko ci seen loxo ginnaaw bi anglais yi ñëw xëccoo ko ba nangu ko ci seen loxo ginnaaw bi français yi ñëw nangoo ko ci loxoy anglais français yi ñoo ci mujj jot ci seekalu fukkeelu seekal ak juróom-ñaar bi ñuy seddoo tefes gi ci diggante hollandais yi ak anglais yi ak portugais yi ak français yi moo tombe ak commerce um njaam ci géejug Atlantique gi commerce um njaam moom mi indi na fi ci réew mi ay jafe-jafe yu bari indi na it caddo yi dox doxiinu doole ci jàpp ay jaam di leen jaay ci njëg gu ñàkk solo ndax dañ leen daan jaay ci ay piis ñu jox la ay coupon ci ndima mbaa dara ci përëm mbaa feer mbaa ay takkaay barandaay yu ñàkk solo lañ daan jaaye jaam yooyu di leen yabal ci îles France yi nekk Amérique ngir ñu daan liggéey ci tooli suukar yi nekk foofu yi xëccoo googu ñu doon xëccoo nguur ak alal indi na fi crise économique bu mag ak crise ci wàllu politique ak crise ci wàllu social loolu moo sabab ñiñ daan tuddee ay murabituuna murabituuna yi moom lañu ñu mujjoon yàq ba naan maarabu waaye mooy ay sëriñ yu jóge woon ca frontière marok ak Mauritanie bokk ci berber yi seenu bi yëngutu li ko gën gën a sabab mooy kiris crise boobu ci wàllu économie ak wàllu politique ak wàllu social mu mel ni crise bi mi ngi gënoon a baree ci wetu càmmo yu réew mi jëm Mauritanie kon loolu moo sabab Naasiru Diin mi dëkkoon Maroc bokk ci berber yi jóg ker yi benn yëngutu jihaad boo xam ni la ko sabab dëgg-dëgg Eh, lenn li sabab bi taxawal taxawal diine bokk na ca waaye lenn yi li jënti wàllu économie réew mi bokk na ca kon murabitoona yi bi ñuy jóg ngir jihaad ñaari idée yooyu moo leen puus benn bi mooy lijjanti wàllu économie bi waaye lijjanti wàllu diine ndax lim déclaré mooy njaayum jaam mi bam ko terewutit lam tere mooy ñu di ko jaarale ci géej gi di ko génnee ak ni ab jullitit mayeetul ñu jaay mayeetul ñu jaay ko kon yëngutu bi mi ngi tàmbalee ci ndijooru Mauritanie ci frontière Maroc ma mooy sax manees na ne Mauritanie jamono bi ñu toll rek lépp ci Mauritanie la bokk ndax foofu la berber yi dëkke daan jànkonte ak kiris économie bu metti ngir li européen yi eh, ñëw wàcc ci senegal rawatina bi français yi wàccee ci saint bi ñu occupé Saint-Louis waaye murabitoon yu it seen jihaad jooju ñu am ci tawfeex lool ngir dañoo daldi nangu kajoor dem not waalo not nañu jolof not nañu fuuta tooro fu ci ne ñu wàccee fa ay teg fa ay kilifay diine yuy àtte ci diine ñu wuutu fa caddo ya am na lenn ci nettalikati histoire yi ñu leen di tuddee buuri jullit buuri jullit yi jamono booba mu ni ay buuri jullit lañ fi ñoo fi nekk waaye jamono yi 1674 ci la Nasiruddin faatu ñu rey ko ci xeex bu doxoon digganteem ak xasani yoon yi ci Mauritanie loolu indi néew dooleeg euh, yëngutub murabitoona yooyu ci mille 1677 nag ci lañ ñu ko daaneel daaneel gu mat sëkk caddo yi dal di jugaat jëlaat jugaat ñoom itam taxaw temm ci nanguwaat seeni nguur waaye européen yi jàppale leen ngir ñoo leen gënoon a arrangé ngir njàppum njaam mi murabitoon yi doon tere jamono booba seen commerce mépp ci jënd ay jaam ci la sukkandiku ngir wax nañu ni pour cent ci commerce senegal Sénégal eh, commerce um njaam la woon waaye gannaaw bu xare yi murabitoon yooyu jàlle it ba tey indi na ay xiif ci réew mi indi na ay jafe-jafe yu bare bare ci wàllu économie ci wàllu politik ndax tax na ñu gën a bàyyi caddu yi gën a bàyyi xel sëriñ si gën leen a jullit yi gën a doxee ak ñoom ci ak noteel gu metti gën a yokk sax njàppum njaam mi nga xam ni moom lañ daan def te sëriñ si jógoon ngir xeex ko rawatina ci jamono yi Lat Sokaabe mi doonoon buuru Kajoor ak e, Sàmba Gilaaju mi nekkoon gi bu Fuuta jamono yooyu ci la njàppum njaam mi gën a tar ci la noteelu noteelu gi gën a metti ci jullit yi waaye noonu ginnaaw bu Naasiru Diini faatoo ci la mbooloo gàddaaye fuuta dem fa ñuy wax bundu ku ñuy wax Malick si sos foofu benn état islamique mi ngi ko sos ci atum 1690 mbaa du ko sore 1690 ci atum 1695 ci la Latsukaabe yilif Kajoor bi mu yilifee sàkk na pexe pexe mim sàkk mooy ñi fi desoon ci sëriñ si te mu ragal ci ñoom ay jafe-jafe ñooñu la fexe ba xëcc leen dugal leen ci biir état am ci ay kilifa yum jël jox leen ab cër ci état bi féetale leen responsabilité ñuy defendre frontière yi waaye li ci metti dir bu gàtt rek sëriñ soos yi dañu daal di jël jikkoy ceddo yi ci wàllu njàppam njaam ak di giir ay alal di yàq-yàq yu bare bari ñu daan leen wooye ay sëriñi làmb ñen ñi nga xam ni diine fees na leen dell it dañoo bañ benn accord bu ñuy siñante ak ceddo yi ñoom nanguwuñ ko ñu daan leen wooye ay sëriñi jàkk révolution ci Fuuta Jallo waaye sëriñu jàkk yooyu ñor gu leen dina ñor ñuy waxtaan di sàkk pexe loolu dem na ba may leen ñu mën a sos benn état islamique ca Fuuta Jallo loolu mi ngi nekkoon ci mille sept atum mille sept cent vingt cinq gannaaw bu bundu kër-këre ba taxawal état islamique Fuuta Jalon kër-kër yi ba taxawal état islamique am islam am na beneen force bu jogaat feeñ ca Fuuta Tooro loolu mi ngi tolloog atum 1750 waaye nag bi parti islamique bi gañe ci njiitul Souleymane Baal jamono boobu yi bi mu gañee rek mooy tombee ak faatu Souleymane Baal moom yi jullit yi tànn Abdul Xaadir Kan ngir mu doon kilifa jullit yëpp ci atum 1790 moo tombeek faluk dammeel bañ daan wax Amari Ngoone Ndeela Amari Ngoone Ndeela moom i ña ko jiitu woon lañu nangu woon muy am genn mokk gu ñuy mokkal fuuta mbaa nangul gu ñuy nangul kilifa yi diine moom daf ko gàntal bépp yëngutu bu kilifa yi diine daan def buy niru ni dañoo yëlif seen bopp mbaa dañuy xëcc indépendant moom Amari Ngoone Ndeela daf koo bañ daf ko bañ surtout ci njàmbur ba ki fi nekkaloon na Abdul Xaadir Kan doon ambassadeur am ñu di ko wax Tafsir Amady Ibra noonu la ko reye Amady Ngoone wax naa ci histoire sëriñ bi ni mooy ki daggaloon maamaaram suufu su Mbàkke waaye la feeñoon ci histoire boobu rek moo feeñaat ci histoire bi ndax loola it li ci histoire wax mooy moomadu Lamine Sarr mi sancoon caarin jama dafa bokkoon ak maam maaram ak maam moxtaar ndumbe mi sancoon kokki dañoo bokkoon di jànge ca caamil ca tabilëk ci daara yi sëriñ Masamba Caam wax nañu ni Mamadou Lamine Sarr moom yi dafa nekk ak dameel bi ci kajoor muy caareen googi mu sancoon waaye doole jëm fi am te yu bari du ko nangu ci li ji yi doxal loolu moo waral ak noonu dox seen diggante ba mu yebal fa nit ku ñëw déclaré dafa ñëw ngir sàkku si xam-xam ba mu fa amee at la ko rendi ñu di ko wax muy benn farakaba bu ñuy wax Maasamba bi wax nañu ni sëriñ sëpp jóge njàmbur ak kajoor ak bawal fu ci ne ñëw di jaale si Malamine Sarr moom yi ba ñu jaalee ba noppi nag la ñu waxtaan ñoom ci seen biir ni nag dameel bii bu ñu ko bàyyee muy rend ay sëriñ dana fi def lu ëpp lii kon nañu xeex ak moom ma wax ni booba lañu ñu déclaré jihaad ji daal di yónnee fépp woo sëriñ si booba maam Maram ma nga ca Mbàkke Saañanka ca Jolof ba ñu yónnee woolu ko nag moom dafa gàntal wax ni loolu du jihaad ab xeex la te moom buy wàllu jihaad lay wàllu waaye du wàllu ab xeex ala kulli xaalin daal maamaram am na gis-gis bu mu gisoon ci ger boobu ba tax nanguwut a wuy si bi ñu demee ba dameel bi xare ak sëriñ si ba gañe leen jàpp ñenn ñi ay jaam ña ci des mu rey leen maamaaram toog na lu mat at doog a jóge jolof ñëw ngir ni day jaale si mbokk daram boobu ay bi mu ñëwee ba dugg suufus kajoor ci la yónnee ci buur bi ni leen ni ko nee leen ko maa ngi koy nuyu buur bi nee leen ko fay naa ko na fi ñëw ba mu jógee di dem di wujji buur ba dañoo wax ni ñëpp dañ caa jàpp ni ko boo demee dana dana ni mu reyee woon sa mbokki sëriñ si waaye ma maram leen déedéet mooy di bokkuñ ba mu demee la ko laaj lu la taxoon a jóg mu ne ko ñaari mbiram a tax a jóg benn bi mooy damaa ñëw ngir jaale si sama mbokku dara bi bi ci desit damaa ñëw ngir bëgg sëriñ boo ci jàppoon benn nga man koo mbaa yàlla wala mu mën koo jot ndax lii du xare bu ñuy war a jàppee ab jaam di ko defub jaam ndax xeex rek la du jihaad ci islam noonu dameel bi rafet lu am xelam ni ko damaa bëggoon nga dëkk ak man ma def la sama sëriñ nga wóotu fi ma Lamine saar waaye maam maaram xamal ko ni ko man kat mënatuma dëkk fenn fu dul Kajoor fu dul ca Jolof waaye njaboot gaa ngi nii eh, koo ci tànn ma bàyyi ko fi nga daggal ko suuf si nga dagg fi suuf ma teg ko fi ba dameel bi ba mu tànnee Ibrahima Awa Ñang mu ne ko kooku dafay sama loxo mënuma tàggoog moom waaye sama taawu nga nii muy Ahmadou Farimata mi mën naa ko fi bàyyi loolu moo waral mu daggal ko suufu Mbàkke Bawol loolu waxoon naa ko ci bu ñuy jàngat jaar jaari sëriñ bi waaye ma ne dameel boobu it moo rey tafsir Amady Ibra moom yi nga xam ne moo fi nekkaloon Abdul Xaadir Kan ci njaamur noonu jullit yi yónnee ci Abdul Xaadir ni ko nag islaam yow képp yaa ko mën a lijjanti yow yaa am doole yi mën a lijjanti islaam jamono bi ñu toll yaa mën a sowee ci coono yi ñuy dund loolu mooy yóbbu Abdul Xaadir kan ci mu créer benn arme boo xam ne mat na fanweeri junni nit fanweeri junni yoo xam nag gone yaa ak jigéen ña ca lañ ngir jubloo not si Kajoor loolu mi ngi nekkoon ci 1796 waaye Abdul Xaadir Kan bi mu dajee ak damel boobu ca fa ñuy wax bongo eh, ñu gañe ko ba jàpp ci fuutànke yi mbooloo jaay leen jaay leen tubaab yi ñu def leen jaam yóbbu leen ñu jàpp Abdul Xaadir Kan ci jëmmi boppam waaye ginnaaw ba mu ko jàppee prisonnier ab diir la ko téye ñu siñeenteeg moom accord yi bu mu fi ñëwati di dal si ci seen kaw delloowaat ko Fuuta gañaay loolu ñu gañee Abdul Imaam Abdul Xaadir Kan nag tax na ceddu yi gën a fitar ci kuwaat ci waalo ak ci kajoor gën a doxal seeni mbir waaye noonu la euh, woote islaam taxawe ci ginnaaw bu mu amee ngañaay yooyu mu am eh, dafa taxaw nag jàllatul benn mètre ba nguur yi njote na sas muy bundoo googu ak fuuta jalloo googu ak fuuta tooro fu ci sax ay xëccoo nekk fa ci wàllug eh, xëccoo ak kilifteef ba tax na dara rekk islaam doxatu ko noonu la situation yi doxee ba ni Cheikh Omar feeña Cheikh Omar mi ngi gane àdduna ci atum 1796 am na ci e, nettalikat yi riwaayaat yi ñu wax ni ngoon gi mu ganee àdduna mooy ngoon gi xare boobu yi amee ca Bongooy ci diggante Abdul Xaadir Kan ak Dameel Amari Ngoone Ndeela at moomu wax nañu ci genn ngoon gi ci la Cheikh Omar gane àdduna wax nañu ni baayam taalibeeb Suleymaan Baal la woon gane àdduna ak Cheikh Omar googu moo sabab sax baayam demul ci xare boobu fekkiwu fekki jiwu ko waaye ma ne islaam ginnaaw bu mu amee nga ñaayee dafa taxaw ba ni Cheikh Omar feeñe ba déclaré jihaatam ci atum 1852 mel ni at mi muy déclaré jihaat moom itam ci la sëriñ bi gane àdduna sëriñ bu mag bi sëriñ bi nuy waxtaane at moom yi muy 1852 1853 ci jamono yooyu nett rek ci la sëriñ bi feeñ ci jamono Cheikh Omar doon kilifa diine gu sellal goo xam ni dafa xeex ngir tasaare islaam waaye nag mu jaare ko ci yoonu jihaat jihaat ngir tasaare islaam mu doon nit ku dëgër koo xam ni du deltu gannaaw waaye ci ñetti anam fa am ñetti farsu yum jàmmaar lool waaw muy doon na xeex contre jàmmukati xiram yi doon na xeex digganteem ak jullit yi muy xaadir ya nekkoon ca Mali ca Masina ak Tumbuktu waaye noonu la amee woon jafe-jafe ci digganteem ak colonialiste yi muy tubaab kon ñetti anam yépp Cheikh Omar dafee jëme woon ay xeexam loolu bokk na ci li sabab eh, ni mu war a jàlle dëgg dëgg dëgg jàlle wu ko ndax li mu gisoon mooy ni fii ci soow jant bi li tàmbulee ca Mali jëm soow lépp moom daf dañ fi war a seetal islaam boom seet set wecc lépp lu ci takk ci ay taq-taq da ko war a dindi ak njaamu xërëm dafa war a jeex dañ fee war a àtte charia islamique loolu yi moo doon gis-gisu Seex Omar mu doonoon ko taxaw ci tabax ay jàkka di tasaare daaray alxuraan yi ba état am yaatu woon na ba xaw a daj Sénégal jamono boobu waaye rek ca mujj ga e, mbokki jullitam yooyu te mooy ahmadu cheikhu bu ñetteel mi nekkoon xalifa cheikh ahmad labbu mi sosoon état islamique ba ca masina ahmadu cheikh moomu ak cheikh ahmad al bakaayi mi doonoon seetu cheikh sid muxtaar kunti te nekkoon tumbaxtu ñooñu la amooloon ak juyoo ba ñu gaaw ko ca Hamdallah gaw nañ ko fa lu mat juróom-ñeenti weer ginnaaw bi noonu ñu ko gayoon mu xotti mu jaar ci ci seen biir ak doole ba génn ko waaye ginnaaw bi rek ñu topp ko ba ci dëkk bi ñuy wax Goro foofu la ko armo bi toppee ba foofu la shahite ci weeru koor 1280 tolloog février 1864 doomam Ahmad jàllale na sax jihaad ji contre euh, colonialiste yi ab diir moom itam waaye rek euh, jàllut na mu war a jàll jàllewu ko yàlla na yàlla yërëm leen te yokk seeni leer te fay leen aw yiw Maba Jaxu taalibe Cheikh Omar la woon moom itam dafa doon xeex contre ñiy jaamu xiram doon na xeex contre colonialiste yi ba suñ borom mayoon na ko ndimbal mu mën a dajale jullit yëpp loolu wax naa ko ci histoire sëriñ bi dajale jullit yëpp euh, ñu fekk ko Saalum Maba ci 1867 la xeex ak séréeri siin yi ñu rey ko booba buur buur siin bañ daan wax Kumba Ndoofeen Juuf moo fa nekkoon loolu kon mooy eh, li am ci wàllu kilifay diine yi geneen wàll gi ci des ci xew-xew yi daan am ci réew mi ci 1809 ci la eh, anglais yi ñëw xëccoo Saint-Louis ba nangu ko ci loxo yi français yi nangu nañ ko lu mat juróom-ñeenti at ndax 1809 ba 1817 mi ngi ci loxoy anglais yi waaye ci 1817 ci la ko tubaab yi français yi nangoowaat ci seeni loxo euh, ci lañ not it gore ñoom français yooyu français yi ginnaaw buñ notee ñaari dëkk yooyu muy ndar ak gore dañoo continuer di dolli impôt yi ñu daan fay ci wàllu duwaañ di ko jox euh, ceddo yi wala fii di ko jox buuri wala fii waaye yokk googu ñu daan yokk e, impôt yi indi na ab xeexoo ci biir ñuy xëccoo nguuruk Kajoor muy guerre ci seen biir ndax ca Waalo xëccoo ba ma nga ci diggante ñu ñuy wax tejeek ak joos waaye ci biir ba ñuy xëccoo ñoom buuri baragwaalo yi it ci seen biir fekk na buuri Tralsa yi sa Rosso di jéggi dex gi ñoom itam di leen andil ay di giir seeni alal jafe yu bare bari amoon taal seeni kër loolu andi ci peggu Saint-Louis ay jafe-jafe yoo xam ne tubaab yi mënatuñu ko dékku ndax booba ñi ngi jóg taxawoon sax am xalaatu coloniser réew mi lu ma waral jëf ji gouverneur bi jëkk a taxawee muy fedar bi fedar ba mooy euh, nanguwaalo waaw moom ñetti armo ñetti songu la fa songu rek daldi di nangu waalo waaye nag nangu gi mu ko nangu it ci loxoy baraag ya fa daan nekk it neexul nit ñi mu sàkk pexe indi fa ku ñuy wax Diop Sidiya koo xam ni moom njàngum français la jàng ñoo ko yar tam bokk ci ñi waroon na donn nguur gi ñu fexe ba teg ko fa mu mel ni kon boobu lañ tàmbalee junju ak président waaye ginnaaw bi lañ ko exil yóbbu ko Gabon kajoor booba ginnaaw bu ñu notee jullit yi ci càmmuñu réew mi ab diir euh, kajoor nee na teg diirub li may sa tenn yoro di yor kajoor di atte muy li tàmbalee 1832 ba loolu moom kajoor am na ak dal waaye ginnaaw bi la crise bi tàmbaliwaat ndax français yi ci ci la ñu occupé lu jiitu loolu gore lañu yëlifoon waaye ci at moom yi lañu fexe ba nangu dakaar boole ko ci bi ñu ko nangoo lañu daldi tàmbulee sàkk pexem takkee diggante saint wi ak Dakar e, bi ñu takkee diggante saint wi ak Dakar ba doon sàkk pexe yi def fi ab raay kon Kajoor dafay daldi dugg ci e, ab diggante bu xat muy yëlif nañ wetam gële yëlif ko ci wet gi léegi mu nekk ci ab digg boo xamante ne day dañ ko tànc ñu dugg ci ay baj-baj yu bari ci jamono yu makoddu ak maajoojo ñoom yàgguñ fi waaye ci 1862 parti bi nga xam ne dañoo weddi nguur gi dañoo fexe ba fal latjoor ci jamono boobu ci biir àtteb Maajooja Faal moom yi loolu moo indi ay guerre dox seen diggante ñoom ñaar ñooñ muy Maajooja ak Lat ay xëccoo ak xeex yu bari dox seen diggante ba ni Maajooja demee ci tubaab yi sàkku ndimbal ci ñoom tubaab yi ñëw jàppale ko ci leen dàqe Lat mu jóge Kajoor dem Saalum ca ba ni ko sëriñ bi Siiru nattale bi Lat ñëwee ngir làqutu ci Saalum ci la maba yabal ay ndawam ñu gàttandu ko xamal ko ni ko du ñu la mën a recevoir ci loolu ngay tuub dugg si ci diine ji en même temps nga dugg si ci biir tarixa tijaani bi ñu nekk waaye mu nangul leen ko ba bokk na ci bokk na ci ñi daan jiite armoy maba ci jamono booba ba ubbi ab xaaj ci bawal ak mboolem jolof gépp te loolu mu ngi nekkoon ci atum 1865 waaye bi ñu reyee Maba ci areb xareb sombo bi ci la Lat Joor Kajoor ci atum 1875 ci la jàppalante ak tubaab yi xeex ak Ahmadu Seexu ba nangoo ci moom Jolof randale ko teg fa Alburi mbokkam la woon waaye ci atum ci la Lat Joor siñenteeg français yi ay accord ci ñu war a def benn raay bu jógee dakaar dem Saint-Louis waaye ginnaaw bu mu signé accord yi ba noppi ginnaaw bi la gis ne lii kat bu ko defee day mel nit dañuy koy not dañuy not am réewam loolu moo waral accord boobu mu signante woon mu deltu ci ginnaaw ci 1881 daal di lànk projet bi waaye bi mu ko lànkee euh, daanaka moo sabab guerre bi am digganteem ak tubaab yi ci xarib ca teenu deqale ba ñu rey ko fa ci 1886 kon xare yaa ngi noonu dajoon kapp réew mi diggante Abdul Qadir Kan ak Amari Ngoone Ndel diggante français yi ak anglais diggante portugais yi ak olaat diggante Lat ak Maajooj diggante Cheikh Omar ak colonialiste yi diggante Cheikh ak xaadri ba ci sëriñu Tijaan biñ daan wax Ceerno Ibrahim Mamadou Ba mi sancoon Wuro Madi sax digganteem ak Seexu Omar taxutoon rek mu neex na mu war a neexe diggante Maba ak colonialis ca Paate Badiane diggante Maba Jaxu ak waa Siin ca Som diggante Ahmadou Seexu ak colonialis yi ca Jaawara diggante Ahmadou Seexu ak lajjoor ca Sàmba Saajo diggante Alburi ak Baara mi doonoon mbokkum Ahmadou Seexu moom itam àndoon nag teen tanoor ci xarit yang-yang loolu lépp doon ay xew-xew yu dajoon kappo réew mi njëkk sëriñ bi di feeñ ci situation yii nag ci la sëriñ bi feeñe andi message message su defar bi ko suñ borom joxoon mel ni kon am na laaj buy taxaw fii laaj bi taxaw léegi mooy ndax bokkul ci ma mu jël weneen yoon wu bokk teg yoon wii nga xam ne mboolem ñi ci jaaroon ay dëkk ak i gàllankoor yu mag dafa nekk ci yoon wi ba ku fi masa jaar jàllu ndax bokkul ci xikma mu jóg teg yoon woowu ah kay ndax yoon wi ñu doon sàkku àdduna fi leen jaar jàlluñ ñi bëggoon a taxawal diine ci wenn yoon woowu la jaar jalluñ kon bokk na ci xikma sëriñ bi bi ñëwee mu jël beneen ligne bu bokk te booba wan yoon la soobu wan yoon la soob ay taalibeem ba doon kaaraange doon làqatukaay boo xam ni jëkk mu di ko wax ci aw làmmiñam lisaanu xaalam moo jëkk a déclaré ne kii ab làqatukaay la kii ab yoruwaay la ma ne lisaanu xaalam moo ko jëkk a wax jëkk lisaanul maqaal moom moo wax ni képp ku bëgg a mucc ci àdduna ak alaxira na nga wéeru si ci man moo delluwaat wax ni nasaa li wa laysa minni yanziu wa innani bihi ximan wa mafzau mu indi tariqa boo xam ni dafay taxaw ci ak jaamu yàlla gu set wecc gu sel taxaw ci ak dëddu àdduna gu mat sëkk taxaw ci bañ lépp lu ñu doon xeex ngir moom muy nguur ak alal taxaw ci bañ ko won ko gannaaw ma wax ne lisaanu xaalam moo jëkk wax ne kii ab wéeruwaay la ab laqtukaay la jëkk mu di ko wax ndax nit ñi amoon nañ yëg-yëgu daw wéeru ci moom bóor yi amoon nañ yëg-yëgu daw làqutu si ci moom ndax ñi ko jëkk topp kilifay diine yi amoon nañ yëg-yëgu ñëw làqatu si ci moom ndax ñu ko jëkk a topp duñu dara lu weesu ay e, nit diine ak doomi buur yi Lat Joor buuru Kajoor bi mu demee ba Maba faatu dafa tasanteeg waa Kajoor bindaat ko leetar bëgg mu ñëw ngir rekk maa jooju daal ab àtteem neexu ñu taxaw temm ci mu ñëw nag Lat Joor ñibbi siwaat Kajoor bi mu dellu siwaatee ànd ak tubaab yi ab diir waaye ñu amaat jafe-jafe ñu dàqaat ko ba mu delloo Saalum nag ba mu demee Saalum dafa xat ci moom ndax dafa fekk njabootug ba def ñaari kuréel kuréel bi Lat Joor àndaloon nag ñam ca àndal fa ñu leen ci dafa xat ci ñoom loolu moo sabab ñi mu àndaloon ne ko benn dangay delluwaat Kajoor masla ak tubaab bi man ànd ak moom mbaa nga xeex ak moom ba man faa toog mbaa ñu bàyyi la fi ndax fii dafa xat ci ñun mu ñu fee nekk ba mu demul ñu war ko ci lañ fale jarbaatam bu ñu daan wax sàmbalaw bi sàmbalaw bi faar benn muy ab jarbaatam mbaa doomu nijaayam sàmbalaw bi moom mu lañ fal mu jaaxle nag moom la Joor di wër fu mu dem ñu ni ko du fi ba mu xalaatee xelam la mu ko jox mooy sëriñ bi sëriñ bi la xalaat ni Eh, moom képp la gis ci kum mën a waxtaanal ci mbiram laaj ko yet xalaat xalaat bu mu ko ci jox mu jàpp ko ndax doy na ko ci wàllu diine doy na ko ci lépp ci xel mu rafet moo tax Lat Joor dafa ñëw ci sëriñ bi diisoog moom ni ko samay mbokk dañu ma wor dem àndeek sàmbalaw bi ma de la laaj xalaat ba xam ndax yow képp laa fi gis ci koo xam ne sama mbir mën naa la ko wax nu may def ndax damay ñëw xeex ak tubaab yi ci doole wala damay génn ba ca bitti ma wuti fa mbooloo wala damay jàmmoo ak ñoom wala nu may def daal sëriñ bi ni ko man de li ma lay xalaat bi ma lay jox ci bu la àdduna wane gannaaw mooy nga won ko gannaaw ni mu la wane gannaaw kon naka jëkk sëriñ bi xeetu njàng leen mi mu nekk ci la nekkoon naka jëkk li mu daan dund it ku ñëw moom la lay leeral muy ne ko àdduna li ma ci gis mooy bu la wonee gannaaw nga won ko gannaaw nii mu la wane gannaaw te na nga xam ne sa mbokki bopp yaag gàngoor gaag nguur gaag ya ca aju woon yépp àdduna rek lañ ni ko teyit mën naa laa warlul ne bu fekkee bàyyi nga lépp ñëw jublu jublu yàlla bu wóor def nii sa mbokk mii def muy Birima Koddi Jóob mii de wóor na ma ne lu gën lii nga doon wut danga ko am waaye noonu Lat Joor ne ko gëm naa ni li nga wax dëgg la waaye nag ku mel ni ma ne Niyel Banding àdduna rek wàcce ko daal di dem yombul ci moom waaye dinaa la war loolu fii ne dootuma waxeek yow ci lu dul lu may jariñ ci sama ëllëg lu may jariñ ëllëg ci sama bàmmeel daal di koy laaj ni ko dama bëgg nga jox ma tur yàlla bu may jëfandikoo te jox ma sa mbubbum bopp sëriñ bu jox ko istixfaar yu mu taalifoon ca jamono yooyu ni ko sëriñ ba nettalee ci Minanul Baaqil Xadiim jox ko mbubbum boppam waaye bi mu ko ko joxee mu dem ak bi muy dajee ak tubaab yi ci deq la ñu di ko rey sori yàggut du sori une semaine loolu yi ko sëriñ bi wax ni ko def nii sa mbokk mii def boo ko defee da nga am lu gën li nga doon wut ana mbokka moom nu def la ci jëkk mooy tuub tuub gu sel ndax bi mu ñëwee jaayanteeg sëriñ bi sëriñ bi def koo xamal ne ko bokk na ci sarti tuub gu set nag Eh, lépp loo yoroon ci ay alal yu lewul danga koy delloo lu mel ni alal ji ngeen jële woon ci xareb sàmba saajo danga koy delloo ndax du alal ju lew ndax xareb Samba Sadio xareb ñaari jullit la ay jullit nag buñ xeexee boo ca jàppee ab jaam baa nga jël ci alal alal ju jëlewut noonu la Birima Koddu delloo alal jamu yoroon ba am caag ñoom jafe-jafe ba sëriñ bi ak Lat sax xam cee xaw cee am jafe-jafe waaye tuub gu sell mooy loolu mooy la ko sëriñ bi wax mooy lépp loo yoroon ci lu léwu da koy daal dellu dëgg-dëgg li sëriñ bi woote bu ñu ko bëggoon a xam mooy lan dëgg-dëgg li mu woote du dara lu dul yeesal diine yi yonente yi daan woote te yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi mu daan liggéeyal mujj ci yonente yooyu lañu daan woote mooy lan woo mbindeef yi ci dayo bi leen bi tax suñu boroom bind leen ana ban dayo moo tax suñu borom bind mbindeefam yi mooy jaamu ko jaamu lan mooy jaamu jaamu dafa am ñaari xaaj dafa am jaamu gu ñuy tudde al ibada ak jaamu gu ñuy tudde al ibada at taamuliya muy jaamu yàlla goo xam ni dafay dox diggante nit ki ak boroomam muy julli ak woor ak jàng alquran ak zikar ak yu ni demee waaye dafa am beneen jaamu yàlla boo xam ni mooy jaamu yàlla gi dox diggante nit ki ak moroomi jaamam ñaari xeet yooyu yépp sëriñ bi saxal ko bu ci ne mu doxee ca noo xam ni eh, raw na xel waaye jaamu yàlla yit di ñaari xaaj benn xaaj bi mooy topp ndigalul suñu borom bi ci des mooy bàyyi ay tere ñaari yooyu yépp yi sëriñ bi saxal ko dundal ko ci jëmmi boppam dundal ko ci mbooloo mi jëkkoon a ànd ak moom ànd ak daddu àdduna gu mat sëkk ak bàyyi lépp luy nuru ak nguur mbaa ak kilifteef nga bañ koo xëccoo ak wéet nag di julli di woor di sikar di jàng alxuraan di ñaan sukkandiku ci yàlla muñ ak nangoo liggéey taqoo liggéey ak loo am mu doy la doy loolu yam joxe la ca des ngir jëmm yàlla te dëddu googu mu woote gannaaw bu jafe-jafe yee amee it jëkkewu ko roye na ko ci lenn ci saxaaba yi saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni abu darda dafa beru woon ku mel ni saad ibnu malik ku mel ni saad ibnu abi waqaas ku mel ni abdullahi ibnu omar eh, ku mel ni muhammad ibnu maslama wala muhammad ibnu salama ak abdullahi ibnu salaam ñu ñëpp bi xew-xew yi fitna yi baree ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, jamono yi ginnaaw bu yonente bi demee képp la coow li tàmbali woon ndax muhaajiroon yi ak lansaar yi am nañ tuuti ab juyoo ca saqifatu bani saaida kan mu war a wotu yonente bi ginnaaw bu njaayanteeg Abu Bakar am na mbooloom arab moo xam dañoo murtat ba mu xeex ak ñoom ginnaaw Abu Bakar Omar bi mu fi toogee lépp dox ci maandute dañu ko rey ginnaaw bi ñu tànn Seydina Ousmane ay mbokkam occupé poste yi di tooñ nit ñi di jëflante ak nit ñi jëflante yoo xam ni indi na ab révolte ba noonu nii lañ deme ba rey Seydina Ousmane mu doon ko set ci ya ko tuumal waaye ginnaaw bu loolu jàllee ba Seydina Ali war a toog mu am jafe-jafe ndax Talha ak Zubair ak Muawiya ñoom ñëpp dañ koo weddi kenn d'accordu ci ak moom gannaaw bi ay xew-xew am xew-xew jamal waqaatul jamal ak siffin ak nahrawaan diggante seydina alin ak xawaar yi fitna yooyu bu mu xewee ñii dañoo daldi génn ñoom dem ba màkka ñu dëkk fa ca wetu kaaba ga di jaamu yàlla bàyyi fitna yépp génn ci ba set ci ak ci mbiri àdduna yi kon sëriñ bi bi mu ñëwee ci réew mi fekk xew-xew yu mel nii am mu sos beneen idée bu bokkut ak idée jihaad be jëkkewu ko waaye xam ne ñu jëkkoon a andi solution boobu ci jamono yi saxaaba yi radiallahu anhum mu ñooñu ma tudd ñëpp mu sooboo ak mbooloo mi ko topp it ngirum tarbiya yar leen sëriñ bi dafa teel a xam ne mbooloo société bu mu mën a doon seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci wàllu yëg-yëg ak ci wàllu xel wàllu xol ak ci wàllu xel société bu mu mën a doon seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci seeni jikko ak yar seeni xel ba mu ni jar ni sëriñ Fallu daan wax ni sunu bàyyi ceerno daf noo jàngal ba ñu ni ar mu yar nu ba ñu ni nër sëriñ bi teel naa xam ni benn société bala moo jàll fokk ñu jaar leen ci ñaari tomb yooyu mooy jàngal ba nga ni ar ñu yar la ba nga ni nër waaye avancement du mën a am mukk li feeg xel mu ni jar amul yar ba nga ni nër amul li feeg xel mu rafet ak yar bu rafet amul société du mën a jàll moo tax bi mu ñëwee jihaad na de waaye ban xeetu jihaad keno bi mu jëkk a sampo ngir jihaad mooy jàngale bu ñaareel bi kon li mu jiital ci jihaatam mooy jàngale ak yar defar loolu la wuutalee xeexu ngànnaay te saa buñ ne jihaad xel yi li ñuy jëkk a daj mooy yenu ngànnaay moo tax bi ñu ko tuumaalee ni dafay jël ay ngànnaay dafa bëgg xeex dafa bëgg a taxawal état islamique comme ni ko Cheikh Omar taxawale ak Maba ak Ahmadou Cheikhum mu saxal tuuma yi ci wet daq ko ci wet ndax da wér na ni dafay jihaad waaye nag ban xeetu jihaad muy waxak ak yéefari di wax tubaab yi ni leen yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujaahidu mun leen yéen mbooloom mbooloo mi bokkaale suñu borom di wax ni ñett la ngirug réer yéen de da ngeen maa génnee wax ne jaamu bi yàlla laata damay jihaat waaye nag wa maqaalukum xaqun fa inni abduhu wa xadimu abdillahi wa huwa alxaamidu wax ji ngeen wax ne ab jaamam laa di dëgg la ab jaamam laa buy liggéeyal yonente bi wa maqaalukum inni ujahidu saadiqun wax ji ngeen wax ni damay jihaatit lu wér la inni li wajhillahi jalla ujahidu damay jihaad ngir jëm yàlla waaye nag inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa waaye nag ci ak ragal yàlla ay xam-xam ak ragal yàlla de ci lay jàmmu yàlla ci lay jihaate abdan xadiman doon ab jaam buy liggéey yonent bi wal muhayminu shaahidu te yàlla de seere na ko waaye bu ñu bëggee tënk ak tarbiyaam ci ay jikko ginnaaw bu mu saxalee xam-xam ba sax bu ñu bëggee tënk tënk tarbiya ak sëriñ bi rek dañuy wax ni jëflante lay doon boo xam ni sa digganteeg nit ñëpp lay doon kele mag kele ndaw ak ki nga moroomanteel jëflante boo xam ni sa diggante kilifa yi diine yi lay doon jëflante boo xam ni sa kili sa diggante ak buuri àdduna yi lay doon lu ci ne sëriñ bi jàngale na na nga ca war a doxe sa diggante ak nit ñi sëriñ bi lam ci jëkk jàngale mooy nit ki benn mu mag la mbaa nga mag ko mbaa mu moroomante ak yow mun la ki nga mag gone na nga ko yërëm ba jàppee ko ne sa doomi bopp ki la mag na ko wekk ba jàppee ko ne sa bàyyi bopp mbaas sa ndey bopp bopp ki moroomante ak yow na ko jàppee ni sa jëmmi bopp loolu rek réglage bu am solo la ci regle li ñu weesu woon ci ay rëng-rëng ak i kër-kër ak i xëccoo ak i bañante ak i xuloo ndax ñett yii rek xaw naa man a euh, défendre yooyu yi ma waxoon leen yooyu ñu yooyu ñu ñu jàll tuub gu sell sa diggante sa borom ak sax ci muñ ak sant ñett yu am solo ngoogu yoo xam ni eh, bu xasee fonde bu buñ ko xasee fondee diine lu ñëwaat rek ndimbal lay doon waaye fondation bi dëgër na ba noppi muy tuub tuub gu sell mën muñ ak nangoo sant xéewal waaw bokk na ci am njàngaleem néewal say ree te ubbi sa kanam néewal say wax ci lu amul njariñ ñàkk a xër ci poñetum àdduna téye sab tànk ba doo ci dox lu amul njariñ téye sab loxo ba doo ci laal lu sa yoon nekkul téye sab gis ba doo ci xool loo war sa xool fegu téye sa bopp bañ a dox ci lu dul aajo bañ a ree lu yéemu wut bul jege njaaloo bul gis ni kenn ameel na la benn àq na nga jàpp ni yeyoowoo genn màggal teggin yu mën a doon ak lu baax lu ñu ma lay digal na xool yow na nga cay doxe tabul xool nu ca keneen di doxe bal ictabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi l asxaaba ay teggin na koy xool ci sa bopp tabul ko sàkku ci kenn waxoon na nit ni ko boo demee fa nga jëm na nga yar sa bopp ba koo gis mën a ànd ak moom waaye bul jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak yow bul def koo gis jéem ko yar ngir mu mën a ànd ak yow waaye jéem a yar sa bopp ba koo gis mën a ànd ak moom noonu la ko daan jàngale moom sëriñ bi jamono bu ne mu yee jàngal ni ni nga bëggee ni nga bëgg nit ñi ànd kaw yow dee ko àndee ak nit ñi waaye mu ne la it nit ñi del xool ci ñoom ak yàlla rek di ko sàmm bul xool la ñu lay defal mbaa lañu ñu lay def waaye xoolal yàlla bokk na ci ab yaram ku la mag nga bañ a toog ak moom ci kaw lal boo demee bu mënoo ñàkk toog ak moom na toog na toog ak moom ak ku wegee la ku dal bokk na ci ab yaram bul toog nit ni ñàbb ci nit taq ci moom na ko dànd booy toog bul toog ci kanamu kilifa na nga wetu bul tàllal say tànk mu jëm ci kilif bul fab sab gis ni ko jàkk kilif dangay damm sab gis bul bari am pox bul bari ay caaxaan bul bari ab yëngutu bul bari ay gestu bul bari ay baj-baj bul bari looy yuqamteku di yërndu lu sa yoon nekkul foo nekk na nga dal na nga taqoo ak noppi bu la nit ŋàññee mbaa mu saaga la mbaa mu wax lu la naqari na nga ko muñ te bul tontu kenn ci lu deme noonu boo toogee kilifa booy ree bul xàqtaay nu mu la neexee da muuñ rek boo toogee kilifa booy wax ak moom bul ubbi rek di wax nu mu la neexe waaye dangay ngay noppi ba mu sàkku ci yow wax nga wax ak moom ci kem la mu sàkku ci yow te bu ko ni jàkk boo toogee ci jataay bu bëgg a jóg booy jóg nga jóg ci ak ñaw waaye bul ni bëreet rek jëri suuf si ci kaw nit ñi moo tax nit sëriñ sëriñ bi sëriñ saalewu dafa ma nettali ne dafa am ku toog ak sëriñ bi bay jóg sëriñ bi daf ko yónni di ko wooloo menn mag mu ni bërit ba xëpp nit ñi suuf si señ bi ne ko ne ko ne kaay mu ñëw mu ne ko boo toogatee fiw nit bay jóg ngay lem say say yére ndànk jóg ndànk ba sori leen te doo jóg ak doole rek di xëpp mbooloo mi suuf si nee na mu ne ko tuub naa ko mbàkke ba mu demee kam ko doon waroo am mag la daf ko woo daal di jiitu di daw sëriñ di jiitu di daw mag ma topp ci moom di sëkk sëkki ba bi mu ñëwee sëriñ bi mënuta xam li muy wax ngir di xeexat sëriñ bi ne ko bu ñu la woola woolotee mag da nga koy woo bàyyi ko mu jiitu dox ni mane nga topp ci ginnaaw waaye doo jiitu di daw rek mu topp lay sëkk-sëkki ba xamut nu muy def nii mu ne ko tuub naa ko mbàkke sëriñ bi ne ko tuub de baax na waaye nag tuub tuubee amul solo mooy jamono bu ne ngay def looy tuub la jub la wax ne amul solo tuub baax waaye nag foo toll di def lu ñuy tuub it nag mooy too ko gën bokk na ci yaru sëriñ bi mu wax ni bul fekk mbooloo muy xoole ngay nelaw ci seen biir mu wax la ni la boo gisee ku la mag muy sàkk benn aajo moo xam dafa bëgg ko mu yónni mbaa lu mën a doon rek nanga ko ko fajal ngir jëm yàlla aajom jooje bokk na ci ab yaram dafay wax ni la bul xër ci aw ñam ak i nelaw akuk lekk bul xër ci aw ñam ak i nelaw akuk lekk moom la sëriñ bay jaxate tënk ci aw bayit ni nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dagg yépp daa def ba far ndomba ga bul bari wax bul bari nelaw bul bari ak lekk saa bu nit sàkkoo ci yow dara nanga ko jox la muy sàkku noonu la sëriñ bi jàngalee tegg ni wax wax ndax wax dafa mën a defar lu bari waaye wax noonu la mën a yàq mën ngaa wax genn kàddu lu bari yàqu bari na guerre boo am ci àdduna boo xam ne benn kàddu ci la tàmbale mu ni bul wax kenn fen nga bul ne kenn waxoo dëgg bul ne kenn jóom nga na nga fexe ba tàmmal sa làmmiñ wi wax lu baax saa boo ñëwee ci nit na nga ko nuyu bu la jëkkee nuyu na de na ko delloo nuyoo ba booy nuyoog nit di saafaanteek moom na ko na dëgëral sa loxo ci loxo waaye bul fef sa loxo fef bu gaaw noonu la jàngalee teggi ni diisoo bul dugg ci ab néeg mukk ci lutu ngay diisoo bul dugg ci néegu jàmburit di teen di xool fa la neex nga xool fa booy ànd it bul ànd ak ku dese bul ànd ak ku bari xeemamteef bul ànd ak ku iñaan booy toog it bul jekki bul toog ak ku dul koy dolli ko ci moom diine mbaa am xel booy jaxasoo na nga fexe ba ki ngay jaxasool na ngay dolli ci moom diine mbaa nga ci dolli ko am xel bul wuutee kub del bul fausse randiw bul fen sa ñaari wayjur na nga leen di topp fonk leen na ngay nooyal say wax sa digganteeg nit ñi loolu dafa am ci boroom xam-xam yi ñuy wax ni képp kuy waaraate di wax ak nit ñi war ngaa jëfandikoo kàddu gu nooy ndax suñ borom bi mu yabalee Muusa ak na ci na da leen wax ni leen wa xawlal lahu qawlan layyinan bu ngeen demee na ngeen ko wax wax ju nooy ñu wax ni nag yow mi waaraate mënoo baax ba gën ñaar ñu ñooñu ndax ay yonante lañ ka ngay waar mënta bon ba yees Firawna ndax fam àggoon nee na ku fay àggati sëriñ bi ni na ngay nooyal say wax na ngay siyaare ji boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñëpp te di leen liggéeyal tey sàkku ci ñoom ñaan boo àndee say mbokk di tukki dee leen dimbali ci bépp aajo na fexe ba fete woo nanga fexe ba féetewoo di leen liggéeyal nanga fexe ba sàmm seeni bagaas saa boo juumee na nga leen balu àq bokk na ci yarub sëriñ bi activité bu tëpparle di noppalu tuuti di yëngutu lu bari bul tànn ab noflaay mbaa loxo yi nen bokk na ci ab yaram dalay xamal ni teraanga mu ngi nekk ci kem ni nga nangoo sonn waaye bu nay yit ci alal nag da ngay teral sa gan da ngay yaatal gan da ngay gàttal say mébét ci àdduna ndax nit ki bu guddalee ay mébétam ci àdduna lu mu teg balaa noppi mu teg leneen bu dana dem ba du tala defate ngir yàlla du tala dimbalee ci mbokki jullit yi du tala du talatee dimbalee foqara way ñàkk yi du talal say dimbale ay mbokkam kon na ngay gàttal say mébét ci àdduna sëriñ bi teel na xam ba tey ni bokk na ci sarti li tax am réew jàll goney réew mi dem ba bokk benn jubluwaay jamono fenn yor benn yar ndax kat jàll réew du am mukk li feeg li feeg nit ñi ñu ngi xàjjale ko di doon ay parti di doon ay kuréel yuy bañante ak a xeexoo réew moom du mën a jàll mukk ci àdduna jamono bu ne demee misaal joxe misaal di wax ni mbooloo yu bari yi ñii di sos ay daare alxuraan ñii di sos ay école ñii di jàngale waaye kenn ku ne beru ci sab koñ yaag sag njaboot di leen jàngal la nga leen di jàngal mbaa nga di leen yare ci na leen di yare li fekk mbooloo yi tëkkoowuñ def benn wenn say du tax ñu mën a taxawalagun dara du tax ñu mën a daaneel dara it jamono bu ne dama koy misaal ci ne mi ngi mel ni ay birig yooyu mi yooyu mool di teg li fekk taqale wuñ ko am miir du taxaw kon sëriñ bi teel a xam ni mbooloo mu bokkul benn jubluwaay tëkkatoowuñ bokk lenn luñ bëgg lu ñu bari bari du ñu tekki dara li fekk tëkkatoowuñ bokk ak jublu rek jàll du mën moo tax mu teel a yar ak njabootam ci won leen benn jubluwaay bu ñu war a jublu boo xam ne jullit yépp fa lañ war a jublu lu fi nekk ay sëriñi diine mu ni la fa kullu werdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida wépp werd wu fi kilifa yor rek murid ba ca jaar dana ko yóbbu ci péew yàlla nit ñi àgg ci yàlla lañ bëgg kon yoon wu nit soobu di ca dox tam war koo mën a àggale ci yàlla wërta dox sa diggante dara wërta dox sa diggante ak moom dangaa war a jàpp ne na jaar ci aw yoonam ngir jëm ci yàlla nga jaar ci aw yoon ngir jëm ci yàlla jëflante bu rafet bi war moom nga doxale ko fi sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi wax na ñoom ñëpp ci ak njub la ñu nekk muy Cheikh Ahmad Tijaani muy Cheikh Abdul Xaadir Jilaani muy beneen sang bu mën doon ci sang si ñoom ñëpp ci ak njub la ñu nekk kon foofu waay jàpp rek na ci góor-góorlu te rafetal te sellal ko te yàlla képp tax koo jóg muy lu am solo ci société bu mu mën a doon rawatina ku ñëw fekk xare yële jàll ak xeex ya ak xëcco ya nga bëgg a takkewaat mbooloo mi def seen benn nii lii rekk mooy yoon waaw sëriñ yi dina yàngu noonu la sëriñ bi dig la nga jëfante ko moom ñoom mu des ay ceddu nan ngay jëflante ak ñoom ñi nga xam ni gëmuñu diine da ngeen a tàggoo ca ca rompañ ba ngeen tàggoo yaa ñoom dañuy wax seli bi yoon kenn ku ne jëm fi kenn ku ne jëm fen gannaaw nag nga xam ni ca pas-pas ngeen wóote lan la la sëriñ bi digal wajtanibu xultata haulai li annaha min aqbahi l ashyaai léegi nag dangay ngay doyloo yàlla tey moytoo jaxasoo ak ñoom waaye nag mudaara te mooy maslaha nag moom kenn ñu ko lakin mudaaratuhumu qad nudibat kama bi nassin fi hadisin qad sabat daal ni waaye nag maslaha ak ñoom sopp nañu ko daal waaye maslaha gi yombul ci lu dul boroom xam-xam mat sëkk boo xam ne maandu na te jëngut ndax boroom xam-xam bu jëng yelluwut muy jaxasoo ak yëfar yi naka noonu ab jaahil ndax ñu wëlbati ko ba dugal ko ci lañ nekk day yomb te nit ki bu xasee ñàkk xaqiidaam ñàkk na lépp kon may tëje rek wax ni sëriñ bi dafa wan nit ñi texe gi gën a rëy ci texe texe gu mag gi mooy lan xam yàlla xam lu tax mu indi la fii ci àdduna xam li gën a cher ci dundub àdduna ku ne xam na ni nit ku ne am na lum gis ne lii mooy li gën a cher ci àddunaam kii day jàpp ni alal mooy li fi gën kon na yëngutu jëm ci jamono bu ne mu yëngutu ngir am alal kii jàpp na ne bu xasee am ay diplôme rek ñu naan docteur la mbaa nangam la mbaa nangam la kooku li bëggoon lépp ci àdduna am na ko am na ñoo xam ne seen gis-gis foofu la jëm loolu la ñuy teg défense ñoo xam ne seen gis-gis mi ngi nekk ñu jàpp ni lii moo gën lañ jàpp ni moo gën ci àdduna mooy nañ nekk président sàngam président bu ko mu di ko def ngir doon looli ndax jàpp na ne mooy li gën ci kaw suuf ba dina am ci nit ñi ñoo xam ne sax la ñuy mébét ak di ko ñaan di ko ñaanlu mooy dañoo bëgg a doon directeuru université sàngam mbaa école sàngam mbaa société sàngam am na sax ñoo xam ni dañuy lu ngir ni dañuy def concours gendarmerie mbaa dañoo bëgg a doon ab policier ñoo xam ni seen it yépp ñu ngi ko tënk ci man ab police la bëgg doon mbaa ma laa bëgg doon kon nit ku ne am na lum jës ni mooy li gën a rëy ci àdduna am na fu jës gisam jam ci àdduna mu jàpp ne lii bu ko amee am na lépp waaye nag li wér te wóor benn sikk amu ci mooy li gën a cher ci lu nit am mooy xam yàlla xam li la indi ci àdduna ak dox jëm ci yooyu te loolu yi wooteeb bi bépp nag génnul cadre boobu ma wax walam azal wax na ne musuma dañ mun soo xaqaltu taaliba maarifatan billaahi musuma dañ di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya wër gi ma daan wër ci diggante borom xam-xam yi ak wàllu yi yëpp bi niyati wa amali wa xawliya sama yéene ak sama jëf ànd ak samay wax lépp bëgg maarifa moom laa doon sàkku kon loolu mooy li sëriñ bi woote suñ boroom nag terale ko won ko li gën ci gën a cher ci kaw suuf muy ngëm ak dox jëm ci li tax suñ boroom bind la moo tax mu wax baat yi ngir nettali xéewal koogu ci suñ boroom defal waaye jublu ci ak cant akramanil muminu bil imaani inda zuhuri shirki fi zamani suñ borom tereel na ma ngëm ci jamono bu ak bokkaale feeñe ci sama réew tasaaro ci sama jamono waxit ni nasaa lii wa laysa minni yanziu am na lu mu ma jox jamono bu ne day day day day day nangoo ci ay béréb di ma jox te du nangoo ci man lenn wa inna ni bihi himan wa mafsaw mu saxal ni ci kàttanu yàlla kaaraange la ab làqutukaay la kon loolu bokk na ci lii ma wax nii nettali ko ci histoire réew mi ak xew-xew yi amoon ak fi sëriñ bi jaar jaarale fi ak njabootam ba jàmm mën a am mën a am ci réew mi loolu yi bokk na ci liñ mën a dégg ci maanaam bayit woowu yi di sàkku sunu borom defal nu ak njëggal ci njuumte yi ak rëcc ci di sàkku mu defal leen ko di ñaan yàlla mu jariñ nu jariñ leen tey ak ëllëg di ñaan yàlla mu may nu ak dégg ci diineem di ñaan yàlla mu sóob nu ci yoonu njub di ñaan yàlla sëriñ bi sunu borom fayal nu ko aw yiw di ñaan yàlla njabootam yi mu fi bàyyi li mu yéene woon ci ñoom bëgg ko ci ñoom jublu ko ci ñoom yàlla na leen ci sunu borom gën a saxal innahu waliyu dalika walqaadiru alayhi wallahu almuwafiqu lissawaab wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon loolu mooy waajtaayu màggal gi ñu waajale lekk ko te jàpp ko muy eh, waa histoire ñu jëkk ña ñi ay kilifay diine lañ ñu jël leen ñu participer si ñu solidarité ak ñoom waaye nit tey it mën a jàng ci démb ba xam fu ñuy teg seen tànk ëllëg jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk Mouhamadul Bachir